en fait dafa am lu ma metti lu ma bëgg a wax waaw mère Aminta mi nekk ci tii bi di def lu ko neex di wax lu ko neex di saaga patati dafa war a xam ni moom mag la mu def yi fu mag te ñun ay jeunes lañu ay xale yu ndaw lañu man ni ngay wax man xale bu ndaw laa amul su may vingt ans matagul mais mère bi ñu muy def dafa ëpp dafa war a xam ni ay jeunes ñoo fi nekk xale yi dañuy xool dañuy gis dañuy def mooy loolu dafa war a bàyyi li muy def xam ne mag la di saaga di wax lu ko neex di wax yu ñaaw lay dafa ñaaw waaye tamit na na arrêté lii dafa tul na arrêté na arrêté li muy def Sénégal nag dafa tàmm nag kaña bu ñu yëkkat bu ñu kii rek ñu jox ko micro kaña bu jug rek wala mbut bu ñu jox ko micro pour lan loolu ay ñoom Pawlish ak ñoom Ouzin Keita dof yooyu noonu ñu ñu topp leen rek di wax di leen déglu lii seetaan seen vidéo ay ñoom mer amante xoolal jolli muy ñëw nit ñi nañu may jàmm waa ñëw li moo tax Sénégal du avancer tamit maa ngi jéggalu nag bu dee wax naa fi ay kàddu yu ëpp mais sama xol lu nekk sama xol rek naa bëggoon wax mère Aminata na bàyyi lu muy def na bàyyi lu muy def na bàyyi lu muy def lu muy def ñaaw na torop